waaw pneu du normalement du suma domaine euh, dama demoon en Suisse pour étudier le son bi ma demee may dem di bu liggéey comme tout jeune émigré bu dem buy jàngi aussi étudiant nga da ngay dem wuti liggéey après may dem ci benn entreprise boo xam ne day exporter des pneus à travers le monde ma fay liggéey samedi dimanche bon ma gis liggéey bi à chaque fois ma dem liggéey benn une fois may ñëw en vacance au Sénégal patron bi proposé ma mu ne pourquoi doo yónni ñaari conteneur Sénégal tu vas essayer si ça marche soo ñëwee nga def ko su fekkee doxul nga arrêté alors bon j'avais pas d'argent ma ne ko man yoruma xaalis pour yónni conteneur par la suite mu ne ma bon je vais te mettre en rapport avec un transporteur mu defaral la arrivé payé boobu SDV moo nekk fii seen représentant la alors ma woote ñu ne ma bon mun nga yónnee conteneur yi ba fii nga fay pneu technologie la tubaab yi chaque jour dañuy améliorer suñu xëyee ñu ngi ci recherche ñu ngi wut ni ñuy def ba noppal nit ki donc avant man dem amoon naa des ay xale séeréer sama jaam yi ñoo fi doon nekk di demoon ay pneu ma taxaw mais suñu gréwee dem tabaski man du ma liggéey. kii filmé sa jaam la kii filmé sa jaam la de séeréer la. <laughs> kon na xaaral ma ma bàyyi ba loolu jàll. donc par la suite ma ne leen bon comme que aussi ñii à chaque fois su xew amee dañuy dem et machine yu bees ñëw nañu bon ma indi machine yu bees yi n'importe qui peut même ku jigéen même bu xale même ñëpp mun nañu liggéey ci machine donc liggéey boo xam ne suñ la formé rek deux jours mun nga liggéey et machine yi day tax jante bi du xoosu te encore maintenant on a des pneus ay jante yu ànd ak capteur te capteur bu nekkee ci pneu soo ko bësee beneen façon bu dul machine da ngay dagg capteur te soo daggee capteur bi détecteur d'air la dootu wax air bi manqué na wala ëpp na donc loolu tamit day indi day xoos aussi gentil donc loolu moo tax on a installé des machines te les machines comme man fi may dem tous les deux trois mois je suis en Suisse man sama pneu maa koy chargé te su amee lu manqué rek ma indil leen donc eh, xale yi fi nekk encore suma fierté la pour deme mhm. je sais que j'ai mis des gos préparé naa leen ku ci nekk chef d'entreprise de demain loolu rek doy na ma man comme plaisir li ci des euh, à sa ñaata nit ñoo fi nekk à peu près. ñun ñi à peu près à sept gosses ici. Mhm. ñu nga xam ne ñu ngi fii mais am na ñoo xam ne dañuy ñëw suñu amee liggéey rek ñu ñëw jàppale ñu. Euh, manœuvre lañ leen di woowe ils viennent ils nous aident à de du le travail qu'il y a après si c'est fini c'est fini. suñ demee ba dugal pneu yi ci magasin yi ba installé ba nga xam ne jaay rek a des la am na ñoo xam ne ñu ngi fii ñi nekk ci machine bi ñi nga gis ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi fële. monsieur Seydou Ndiaye comme euh, pneu moo ñu fi indi ndax pneu boo koy seet mooy tànk oto bi bu pneu amul si oto oto bi du mun dem fenn léegi dañu bëggoon déjà nga wax ma caractéristique bu pneu euh, vraiment caractéristique li nekk ci biir yëpp ak njariñ yi waaw pneu mun nañ ko wax fii ba suba du jeex parce que euh, c'est des années de recherche yi tubaab yi di def avant pneu day am chambre loolu la xam ñun temps yu njëkk yi soo amul chambre à air pneu jël air. léegi pneu tube les lay wàcc c'est-à-dire sans chambre à air le pneu vient moom jante bi moom kese nga soxla ak valve tubeless buy crochet wu ci jante bi xam nga loolu déjà changé na ça permet aussi que soo crevé mun nga ko utiliser bu fu sore mun nga yokk air sa pneu crevé na avant une chambre à air su crevé rek oto bi day taxaw parce que chambre bi per na jeex na mais léegi pneu bi day am am na sax léegi pneu yoo xam ne su la neexee am na anti crevaison da def ci pneu bi su pont bi ñëwee jam ko day fàtt automatiquement léegi am na ay pompe yu ndaw yu ñu jaay da ngay ubbi valve bi nga sol ko ci biir su pont ñëwee fekk ko ci biir air bi fu mu war a jaar day yóbbu kol bu kole ko mais sinon mun nga méncher aussi pneu loolu mooy pneu tubeless loolu benn pneu la pneu am chambre à boobu baaxul parce que interdit maintenant les chambres à air en Europe conseiller wu ma kenn et c'est dangereux faut pas mettre des chambres parce que su tojee rek oto bi day mun na këpp li ngay dëgg parce que samraay rek mooy toj oto bi daanu. waaw ah, que bu bu tojee ci biir day am pax day am pax. plus rien mais alors que valve bi même su pneu bi xottee ko loolu la boobu benn crash benn façon pneu la. beneen pneu bi mooy pneu boo xam ne euh, ren flat la mooy BM yi ak yenn Mercedes yi moom lay wàccee. saa veut dire que même su xottee ko mun na daw. c' est des voitures qui viennent sans roue de yooyu tamit beneen façon pneu la. mais soo yoree oto boo xam ne warul am roue de nga jël pneu ordinaire def ko ci soo crevé tu es de rester mais su fekkee ki xam xool na ne pneu bi war ren flat la war a jël boo xam ne du am samraaye bu boobaa da lay montel benn façon pneu am beneen façon pneu boo xam ne bi ñuy woowee camionnette c'est renforcé pour pois boobu tamit beneen xam nga wax naa la fii ñetti façon pneu déjà pneu boo xam ne ren flat la mooy oto bu amul secours pneu boo xam ne normal la mais tubeless la ak pneu boo xam ne renforcé la boo la ñu woowee par exemple su ma la nee deux cent cinq soixante seize C C veut dire camionnette camion veut dire que le pneu il est renforcé mun na jël poids mun na jël cinq tonnes mun na jël léegi nag renfort bi mu ngi dépendre ci poids auto bi camion warul monter pneu ordinaire pick-up warul monter transport en commun warul monter euh, auto bu passé sept huit places ba neuf amatoo droit monter pneu ordinaire pneu boo monter C lay doon C veut dire camionnette ça veut dire que day yenu poids sinon daf nga erreur ndaxte su poids bi wàccee pneu bi ekplaté pneu nag bees ak bañ a pneu bu bees poul même bu dee bu bees zéro kilomètre su fekkee poids de charge bi nga ko tegal mënalu ko day toj donc mooy li ñuy wax rek euh, mara di tali yi am tuuti ci tali bi surtout surcharge yi moom lu muy indi ci accident mortel dafa bari mais bus yi ñuy wax nii yëpp loolu la parce que un véhicule qui vient en Europe ñëw tant de place yow nga def ko comme su doon camion dix tonnes yow nga yóbbu ko vingt tonnes nga bëgg a pono ko montel mën parce bu ñëwee du am gal du am galerie ñoom dañ ci fabriquer galerie. mënut a nekk même nit rek. même oto bu doon jël quatre personnes soo ci defee sept personnes ëpp na. surcharge la. nit ku nekk poids am la cest que euh, y yoo xam ne nit ñi ñëw mënul comprendre gendarme bi walla policier bi bi lay jàpp ne la poids bi dafa ëpp nga jéem a fexe pour rëcc ba mu bàyyi la su la bàyyiwul nga intervention ñaan dëggu fi génn fi mais heure boo amee accident nit ñi dee sa responsabilité la. la responsabilité chauffeur yii la amul keneen man soo ma joxee oto te pono bi baaxul wala am na problème ma jox la sa oto dem wàcc ne ko bëgg naa liggéey loolu mais oto bi duma ko yóbbu soo ma changé lul pono dangay gis ku ñëw fi ne wutal ma pono rek occasion may dépanné wu ma ne la loolu baaxul donc loolu moo tax pono dafa bëri façon et puis am na aussi ay pono yoo xam ne bi ñuy wax neige boobu bëreetul Canada rek lay jóge peut-être mais yeneen yeneen dëkk yi M plus quatre saisons la day rouler ci saison yi moo tax pneu yu bëri léegi du pneu neige parce que pneu yu ñu fabriqué da ngay dem Europe par exemple en Suisse nga ne Genève doo am neige chaux-de-fonds day am obligé de monter un pneu M ki nekk Genève di seeti mbokkam bi nekk chaux-de-fonds su demee neige toog fekk ko foofu dina ko dina dina ko mën a dawal comprendre donc loolu kese la c'est-à-dire que pneu dafa bëri bind am na dan de fabrication am na lu bëri am na waaw mooy indication yi may gis ci booru pneu yi lu ci nekk am na lu muy tekki. am na dot par exemple ñu ne la euh, quatorze vingt et un disons quatorzième semaine de l' année deux mille vingt et boobu valable na mais su ma la indiloon léegi benn pneu boo xam ne ñu ne la quatorze douze quatorzième semaine de deux mille douze pneu boobu mun na dem mais mun na bañ a baax aussi soo ko utiliser peut-être six sept mois nga arrêté soo ko utiliser lu yàgg parce que même bu beesee mënatul caoutchouc bi bàyyi na. fissuré na ba pare. comme ñun tam ñaari saison la ñu am saison sèche ak saison de plus yan pneu moo gën a adapté en Afrique. actuellement en Afrique le meilleur pneu il est M plus S soo amee pneu M plus S quatre saisons am na ci boo xam ne nag neige la spéciale dana nekk M plus mais neige la mais dinañ la jox témoin d'usure neige woon la témoin d'usure sooy daw ci été c'est-à-dire pneu boobu saison yëpp lay daw c'est-à-dire xam nga tubaab yi dañuy avancer. avant tout euh, kenn day jor benn oto jor ñaari jeu de pneu su hiver amee amul fu mu ko denc da koy dénkaane ci garage ba léegi nag am ñoo xam ne dañu ne bon mun nañ jël benn M plus S benn yoon c'est tout. lan ngay digal euh, chauffeur yi par rapport ak choix wu pneu yeex comportement yi ñu war a am ci si euh, seen oto parce que am na ñoo xam ne léeg-léeg nga dégg chauffeur bu la ne awma roue de te war na koo am chauffeur boo xam ne. day dem ba am problème taxaw ci tali bi di tàllal loxo naan amul clé-roue mhm. wala wala wala awma cric cric wala mooy cric mhm. yooyu dafa doy waar trop wala bon léegi sax torche c'est pas la peine parce que portable yi dafa am torche mhm. kooku amatul problème et puis aussi euh, lan daal en général nga leen di digal pour wàññi accident yi waaw non man euh, wallu accident je reste dans le secteur automobile mais pneumatique c'est-à-dire que une roue de secours c'est le minimum bu dee oto bi équipé wul pneu ren flat su fekkee nag dafa équipé wu que c'est prévu mu daw sans roue de secours fexeel ba pneu bi ñu la laaj moom nga ciy def loolu bennal mun nga daw sans secours parce que man damay dem fii ba Fuuta sama pneu toj fa ma dawal dem ñëw ba beneen fu ma bugg a changer pneu bi ma changer ko soxlul même bu pneu bi xottee woon dina daw wala on a prévu un pneu de secours nga def ci pneu de secours mais li ñuy bañ li may bañ nag man fii ñu ne la roue de secours rek la roue de nag mooy affaire parce que boo tojee pneu Linguère nga war a dem dakaar quatre heures du matin yi amul benn pneu sa roue de secours bi moo la yeggali Dakar donc il faut que la roue de secours mu baax déjà su fekkee baaxul da ngay am problème li ci des clic bi ngay wax te loolu même contrôle gendarme yi ak policiers yi mën nañ ko def soo arrêté oto ma ne ko ana sa roue de secours nga xool ndax baax na loolu pour l'aider c'est pas obligé da koy dimbale parce que su dee transport lay dem ay nit lay yeb mais keneen koo xam ne kay oto la su crevé amul roue de secours c'est son problème il va se retrouver au bord de la route amul beneen pneu dina fa fanaan dina wut roue de secours c'est lui qui va perdre mais peut-être auto transport yi mun nañ leen exiger pour nit yi ñuy yeb mu bañ leen lor loolu benn affaire la deuxième chose vérifier que les boulons sont bien serrés surtout man dañu koy def léeg-léeg même ñun oto bi day wàcc man laajaal leen ce que boulons yi ngeen ko bu baax ñu ne ma waaw ñu vérifier que manqué wul boulon yu bëri loolu c'est dangereux aussi li ci des la pression d'air soit c'est trop il y d'air ou ya y a moins d'air c'est pas bon si c'est trop d'air c'est pas bon si c'est moins d'air c'est pas bon à dire que un pneu sur la portière droit ou côté chauffeur soo ko ubbee dinañ la wax dimension bi ngay monter ak pression bi ñaata air ngay def air bi nag mu ngi dépendre ci nombre de personnes chargées soit quatre personnes avec bagage ñu ne la 3 kilo su dee yow kenn yaay ànd ak sa oto toujours comme monsieur madame bëriwul nga def 2 kilos 500 parce que t'as pas besoin de mettre beaucoup d'air parce que yeboo c'est-à-dire que air bi mu ngi dépendre ci li ngay chargé su oto bi 4 personnes la plus bagage toujours dangay ngay nekk complet il faut toujours mettre le maximum pour éviter que pneu bi di bës di euh, di tegu ci tali bi muy lekku te aussi pneu boo ko monté amul dessin jeex na mais loolu li tax muy toj ñi ñi comprendre ñu parce que su amul aération bi di jaar ci diggante pneu bi ak tali bi pour refroidir le pneu air mënutu fa jàll soo jëlee sa loxo bii nga frotte ko nii toujours day tàng no pneu bi day tàng mu toj moo tax nga ne pneu bu jeex mu dangereux monter ko waaw dafa war a am mooy diggantam ak tali bi mooy pax mooy pax yi ñu gis nii ci pneu bi yi ngay def lii lii mooy témoin bi ça c'est par exemple xam nga un pneu neuf ñu bind deux cent vingt cinq soixante cinq dix sept à cent lii tamit dafa am lu muy tekki kii da lay wax euh, vitesse bi ngay daw yooyu aussi mu ngi ci xam nga am na yoo xam ne poids chargé li ngay chargé pneu bi lu mu attan kilo yu mu mun a attan ak vitesse yi ngay daw loolu yëpp si écrit sur le pneu donc li ñuy xool en général mooy la dimension ak 17 225 mooy pneu bi cinq mooy pourcentage bi hauteur bi 17 mooy jante di le reste c' des choses yoo xam ne technique nit ku jënd pneu mënu ko xool ñi koy ki lay conseil mooy li may conseil ñëpp c' est d' avoir de bons conseillers faut pas aller chez quelqu'un qui connaît rien en pneumatique tu perds ton temps mu yàqal la yàq sa oto c' tout il faut aller il des gens am na ñu xam yàq pas que man je suis pas le seul spécialiste en pneumatique au Sénégal il y en a plein les meilleurs avant de partir un véhicule chauffeur le matin fait le tour de la voiture regarde les pneus l'état du pneu soo munul demal chez quelqu'un qui connaît il contrôle mu ne la léegi mun nga dem parce que pneu bi mun na rafet yow fekk baaxutul jeex na day toj. kon foog ngay digal euh, chauffeur yeex yooyu que surtout ñuy voyager balaa ñuy voyager ñu jaar ci ñu mel ni yéen ngeen xool seen état pneu yi xool ndax war nañoo kii parce que léeg-léeg nga gis koo xam ne sax otoom gëj gëj naa crevé. mu yor benn roue de secours boo xam ne mu ngi ci ginnaaw oto bi fu muy crevé lay xam ne oto bi peer na. Ah. du ci du ci gën a am na ku yor oto 6 mois moo koy dawal oto bi dafa am mu ngi lekk pneu yi ci biir te moom yëgoo ko xam nga boobu gën a garaaw. fer bi dem na toile bi génn na moom il voyage parce que pour moom ci biti mu ngi xool alors que ci biir pneu yi lekku nañ ba ñu ngi pare toj. da ngay génn Dakar rek pneu bi toj. soo ko dindee ngay soog a rendre compte que yow sa pneu oto defa paralysé. parce que pneu bu bees mën nga ko monter dans six mois mu lekk ba jeex parce que oto bi techniquement nekkul au point donc euh, paralysie bi réglé wuñ suñ ko réglé wul day lekk pneu bi su lekkee pneu bi yow yëgoo ko ci biir la koy lekkee noo koy xamee tu roules mais si tu vas en connaisseur soo soo nee la oto bi nga braqué mu xool mu ne la oto bi pneu bi baaxul parce que da nga paralysé réglé ko moom ngay gis visite technique de di dàqee nit ñi mais ces temps man les félicite parce que man gis naa ne depuis accident boobu lu ñu fiy dàq ci nit par jour man li ma fiy jot mënuma la ko wax et à chaque fois suñuy dàkkee nit ñëw fi kaas su ma xoolee damay ne ils ont raison parce que gis nga pneu bi soo génnoon mu am problème donc temps yi visite technique moom ñu ngi ñu ngi bëri wax dëgg yàlla ils sont en train de faire du bon travail. waaw léegi euh, pneu yi dama doon laaj comme marque oto yi dañu bëri am na ay français japonaise allemande ndax pneu yëpp mën nañu adapté ci oto yëpp. non pneu euh, fu mu jóge oto mooy allemande wala française mais pneu nekkul Michelin marque yi peut-être français la nga ne Dunlop wala yeneen pays wala Bridgestone wala Goodyear mais ñoom dañu am rek ay oto yoo xam ne haut de la seeni pneu ñoom noonu lañ koy liggéeyee sof que yenn dëkk yi actuellement ñu ngi defar contrefaçon pneu te ñun xam nañ ko su fekkee yow da nga yor place bu respectable ñu proposé da ngay bañ man sama pneu yooyu du dugg fii on me propose des pneus à mille neuf chaque jour ñu ñëw fii ay indien ñu ñëw fii suma ay nit ñoo xam ne xam nañ ma ma ne leen man du ma jël yi ah, parce que sama responsabilité la waaw ah, naa si jaar parce que am na pneu yoo xam ne préfabriqué yoo xam ne dañ koy defar ci yenn usines yi ci fépp ci monde bi yoo xam ne euh, ay yu faux la waaw mais partout y a le contrefaçon dem na ba nekk ci garab kay garab kay gën a garaaw ko nga niin mun na ko naan dee pneu moo gën a garaaw donc nit ñi ñoo war a taamu fu ñuy jënd avoir une personne à qui on fait confiance c'est tout maintenant ki nga wóolu nag mu fexe ba dafa def lu jub ñun nit ñoo fi gën a dëng suñu catégorie bi ci marché bi ñu nekk on est vraiment y a vraiment des tordus parce que am na loo xam ne su ma ko waxee tax ñu ngi koy def ci pneu tey da nga may ne noono mais je veux pas rentrer dans les détails ñi mun nañu comprendre ne am na magouille bu mag bu nekk biir pneu ici au Sénégal laa la wax de donc les gens doivent faire attention c'est si tu fais attention et puis ñu bañ a wut lu yomb fii nga gis nit ne la pneu nangam laa bëgg ñaata lay jaat lu tax nga ne ko ñaata lay doo ko wax woon ma pneu bi ba pare si tu avances un prix de dix mille le pneu bon pneu coûte vingt cinq mille il va te chercher un boo xam ne jarul dara mu jox la ko faut pas d'abord le prix avant de voir le pneu wala ànd nga ak nit d' accord d' naa li nga wax mais génnal ma pneu bi si tu as quelqu'un qui contrôle mu contrôle si t'as pas quelqu'un qui contrôle mu may la garantie comme on fait ici six mois su munul mu may la au moins un mois le temps de rouler et de vérifier que le pneu est bon c' tout. Euh, léegi gis naa ne aussi bi ngay visitaloo euh, magasin bi am nga ay pneu yoo xam ne utiliser tuñ ko fii mais pour combustible la. waaw déchet la c' est à dire j'ai aussi la Sococim. saa yu ma démonté pneu pendant un mois ba mu mot camion ñu yóbbu ko combustible il me donne des bons bons yi à la fin du mois ma demee ba am benn quantité de bon ma jox leen c'est vrai ça ne me rapporte pas grand chose parce que je te dis que une tonne il me donne quoi quinze mille ton tonne de pneu et ça veut dire c'est presque même pas cent par pneu mais ça me paye le transport de la voiture parce que oto bi su yóbbee six sept tonnes dina am au moins soixante dix mille quatre cent mille suma cent mille ça me permet d'évacuer mais déchets et puis ñoom it dañ koy def combustible nit ñi duñ ko utiliser pour def ko ci yeneen oto et en plus pollution bi dina tànne ndaxte ñoom ils ont les dañu koy détruire léegi gis naa ne aussi euh, macha allah seen magasin yi dafa baax parce que pneu yi doo ko bàyyi ci mbedd mi te ñiy bàyyi seen pneu yi ci mbedd mi souvent moom la ñuy utiliser gars yi dañuy jël jël ko ci manifestation yi di ko taale ci tali bi loolu dèjà day yàq tali bi tali boo xam ne ay milliards lañ defara goudron yi boole ci pneu yi moomuñu ko mu yëpp jàmbur la ñuy jël mais comme dañ koy bàyyi ci mbedd mi góosu dañuy ñëw rek jël pneu yi yow la fekk que ngay denc say pneu sa magasin loolu vraiment dina wàññi genre wu activité yooyu waaw c'est-à-dire que loolu aussi mooy li mu la wax xam nga organisation ci lépp mu ngi ci fii mun nga ñëw fi n'importe quelle heure la nuit doo fekk benn pneu ci bit parce que nos pneus déchets am na fu ñu koy def fii ci biir magasin bi am na foo xam ne déchet rek la pneu yu baax yi am na fu ñu nekk mais lu ñu démonté suba ba ngoon am na fu ñu koy def bu demee ba mot camion ñu yóbbu loolu ñu ngi doon collaborer même ak police ñoom léeg dañu doon ñu woow ñu ñu dem jëli ko commissariat jëppal wala ñeneen wala ñeneen dañuy woow léeg-léeg xam nga loolu tamit pneu boo xam ne doo am dara mënoo ko yóbbul keneen man dama ko daan def je ramassais tous les pneus qui traînaient en au Sénégal à dañuy doon yóbbu ay oto ba ba Thiès mais dama dem ba xam ne li ñuy fay j'avais acheté des camions ak booy yi fa liggéey amul njëriñ su amul njëriñ man je m'arrête à mes pneus que je demande. gis nañ na côté aar aussi pneu yi ñu ngi ciy def ay meubles. waaw waaw am na ku koy def am na benn suma benn xarit suy sax jabaram da ngay def toujours <laughs> daf may wax ne yo jox ma ay pneu ma def ko meuble. mais di ko du ñu mun a éliminer lu bëri parce que meuble tuuti rek lañ ci soxla mais li ma la wax ni Sococim ñooñu ñoo mun a éliminer ñooñu tu amènes cent mille tonnes dañ koy jël mais il faut que nga am contrat ñoom liggéey ak ñoom te aussi du n'importe quel pneu ngay yóbbu donc am na pneu yoo xam ne daawuñu ko jël pneu camion léegi dañ koy jël c'est-à-dire que problème bi mooy euh, fauteuil yi ak yooyu aar la gars yi dañ ciy liggéey mais aussi du bëre parce que mënuñu utiliser pneu yu bëri. Donc, et à travers tout le Sénégal, il y a beaucoup de déchets. Trop de déchets de pneus. Il faut qu'on s'organise pour que nit di yóbbu pneu yi am nañu usine su dee yeneen usine mun nañ ko def ñu koy def mais mun nañ def leneen ci pneu mun nañ ko def ay granulés def ko gazon synthétique tout ça c'est possible mun nañ ko def des tapis pour des jardins d'enfants c'est possible parce que mun nañ ko brouiller def ko ay granulés gars yi ko ah, dans les pays arabes y en a Algérie Égypte mun nañ ko couler def ko ci jardin d'enfants yi wala ñii di def judo ak yooyu c'est très bien fait tapis la tapis plastique mais loolu moyen yooyu man aw ma ko xalaatuma ko j'ai même pas le temps parce que def naa li ma doon def yëpp ci pneu je veux terminer en beauté li ci des les gens vont voir s'il y en a qui ont des idées je peux donner un coup de main. monsieur Seydou balaa ñuy jeexal euh, am na oto bu nekk ci biti boo xam ne xam naa après dugg pour alignement foog nga wax ñu tuut ci alignement roue yi. cest que xam nga oto aussi dama lay wax pneu am na avant arrière. gauche droite moom la ñu woowee sens de rotation sur le pneu. parce que kii dafa indi otam bàyyi caabam dem changer ma pneu yi maa ngi jël si sama oto bari na ñu koy def on va arriver à un moment ñun dañuy jël ay rendez-vous pour monter des pneus a on est en train de construire un grand magasin bu moderne je ne veux pas dire tout de suite fan la ak où mais on est en de le faire une fois que c'est fini dinañu am technologie boo xam ne problème du am ci pneu. en tout cas mais du ñu monteti comme ni nit ñi di def nga ñëw rek sa oto da ñuy woow ñu préparer la comme visite technique heure nga ñëw ñu jël temps xoolal la sa oto contrôler la monter la même bu dee benn pneu ci gaar ta voiture ñu waxal su fekkee ne mënoo jël si euh, indi oto bi on envoie quelqu'un chez toi mu indi la oto bi ñu indil ñu oto bi ñu defaral la ba mu baax cest à que oto waruñu ko café dafa visite technique nag man su ma doon état bi tey pneu du ma ko defal un an tous les six mois damay ne pneu dañ ko war a contrôler xam nga bi ñu nee dañuy interdire pneu yi nee naa leen que du solution solution mooy contrôle xam nga contrôle mooy conteneur bi ñëw port nga def équipe mu dem xool conteneur bi ndax war na dugg Sénégal wala warul Suisse yi noonu la ñuy def dañ lay contrôler sa conteneur avant de partir si le conteneur est bon ñu nga exporte si c'est pas bon ñu dóor la amende ñu lakki pneu yi fii tamit su amoon loolu tey ji tous les six mois benn maison de contrôle spécialisée en pneumatique jeex na dootoo dëggati accident pneu gendarme bi na wala policier bi nekk ci yoon bi na la laaj ndax am nga contrôle sa pneu yi soo amee visite technique ba pare mu ne la contrôle pneu yi contrôle nañ ko nga yow munoo ñu jox ay garage licence bi ñu jox ay garagistes des professionnels pas benn nit peut-être plusieurs ou dix personnes ñu ne la Seydou Ndiaye su la defaree apte pour sa pneu yi voyager jeex na sa engage sa responsabilité wala keneen Demba Ndiaye bale bi nekk fale même chose la et puis ça sera réglé donc il y aura plus d'accidents sur des leneen mënuñu wax ci pneu nag te lu ñu wax ci jante waaw jante moom moo yor pneu. mais pneu moo am contact. pneu mooy liaison entre chauffeur ak tali jante sore na parce que jant bi balaa mooy pneu bi mooy tegu. jante en général c'est pas tellement dangereux parce que jante tant que yi quatre boulons yi wala cinq boulons yi côté moom la amal affaire tant que les boulons ne sont pas cassés <laughs> dañuñu jante amul la solo mais pneu moo am. contact ak tali bi pneu mooy toj pneu mooy am problème et faut faire attention léegi les jantes en aluminium la ñu fabriqué waxuma nag fabrication yi ñuy importe yenn dëkk yi nga xam ne c'est pas homologué première secousse jante ba toj waxuñu boobu de jante yoo xam ne dañuy briller de partout mais bu leen ko monter c'est dangereux elles vont se casser ñoom ñëpp dañuy toj te su tojee mu gën a graaw war nga conseiller itam chauffeur yi Euh, am na jante yoo xam ne seen oto am na jante mais jante yi dafay noor loolu dafay lor pneu bi. waaw cest à bi bu nooree ñoom seen pertement la parce que air bi day génn comme que amul chambre tubeless la léegi tubeless mënatoo monter jante bu noor boo ko monter yow yaay sonn jante bu xoomaag yow yaay sonn jante bu màgget yow laay yaay sonn donc but bi mooy loolu moo tax peut-être ñu def tubeless tubeless benn jante bu baax moo ko mën a def bu jub bu dëngu nit ñi ñoo koy def rek mais nag xam nga Sénégal mu ñu sànni dara ñoom lu am dañ koy taaba daaba daqi xam nga nuñ koy waxee ci wolof ba mu doxaat ils mettent en route ah, surtout naa ne fii tam ay auto tourisme moo fi nekk est-ce que di ngay liggéey camion yi pneu camion dama koy def mais dama ko su yegsee rek dem na pneu camion commande lay nekk parce que day jël place te ñun duñ ko monter mais nag euh, place yi ñu war a wut parce que je suis en train de voir côté yooyu dinañu def boo xam ne benn magasin boo xam ne pneu camion la ñu koy monter foofu mais fii mënuñu pneu yi su wàccee rek day jaay naa ko ba pare. parce que ñoom ma pneu même yu ndaw yi su ma bëggoon jaay benn du des mais je vends pas en gros man je monte rek les pneus ma jëliwaat. est yaa ngi xalaat euh, def benn centre de formation pour jàngale li école wala dara wala université. c' est un peu tard pour man parce que avant je pouvais mais j'ai plus le temps mun naa former ay xale comme ñii. ils vont aller former d' autres. loolu kese laa mën mais def école j'aurais pas le temps te du ma ko mën toog te nit aussi sooy créer dara day fekk nga mun ko may temps bi magasin yu mel nii j'en avais huit à travers le Sénégal j'avais huit magasin comme ça maa tëj lépp ba des bi tu sais pourquoi parce que bi may taxaw moom laa mun a surveiller sécuriser former ay nit nekk à côté ñooñu nag su leen neexee ñu ubbi leneen parce que du ma am jot xam nga amoon naa même à Mbacké partout j'avais des magasins mais après dama tëj lépp ma ne leen bon concours bi mun naa concentré wu ci bii nekk ay nit former leen aussi dans la vie y' a pas que le travail y' a un moment da ngay bàyyeeku tuuti def récréation. waaw monsieur Seydou Ndiaye sunu label télévision mu ngi lay sant parce que xam naa ne amoo jot gis naa clients yi ñu ngi lay xaar mais vraiment teewlu nga ñu lu yàgg pour mën a wax ak ñun ñu ngi lay gërëm di la sant. je te remercie Medoune parce que man suma doomi bàyyi et puis aussi euh, si ma amee temps rek à chaque fois que je peux donner un ci li ma xam. dana ma dimbale pour ëllëg keneen mun ko njëriñoo et tant que ça sauve des vies je peux prendre mon temps ma jox la